asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weer wu sell wi ñu bokk dugg muy weeru koor di weer woo xam ne yàlla moo ko baaxee xeetu sang bu tedd bi alayhi salaatu wassalaam doonte koor sax farataaloon nañ ko ala alladina min qablina mu nekk weer woo xam ne dafa ñëw pour seetal ñu ci sunuy bàkkaar te doomu adama xam ngeen ne bàkkaar def bàkkaar yomb na ko lool waaye nag yàlla baaxe ñu yërëm gum yërëm jaam ñi ak bëgg gum bëgg ñépp mucc moo tax mu indil ñu weer wii nga xam ne daf ñuy fóot daf ñuy def tathiir min addunubi wal maasi wal sayyiati wal muxaalafaat daf ñuy fóot daf daf ñuy purifier ci bàkkaar yi ak mooy yàlla yi ak ñaawteef yi wa min alfawaxishi kulliha ma dahara minha wa ma batan ñu tàllal yàlla suñu loxo ñaan ko ña nga xamante ne bii danañu woor ca nañ ko war a defe bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi joteeg seen soxna ci bëccëg bi noonu ñuy bàyyee lekk bàyyee naan bàyyee joteeg seen soxna ñi ngi ñaan itam seen yeneen cër yi ci des yépp woor yal na làmmiñ wi woor yàlla buñ ci wax lu ñu warta wax yàlla buñ ci jëw doonte jëw daganul ci benn weer allahuma lu dul xaalaat ya nga xam ne bi boroom xam-xam yi gëstu nañu génne ko ba wax ne am na ci xaalaat yoo xam ne mën naa nekk loola boroom xam-xam yi leeral nañ ko lañ yàlla téyel suñu làmmiñ mu woor la koy may ndam ci biir koor gi muy jàng alquran ak waxtaane waxtaanu diine luy defar ak bokk luy yéwénal diine doomu aadama loola yàllañ ci yàlla xiir suñuy bët itam yàlla na woor yàlla buñ ci xool luñ warta xool doonte daganul ci benn weer waaye rawatina ci weeru koor yàlla na bët yi woor soo bëggee nag say bëtu woor bañ a xool lu mu warta xool dangay sori télévision yeeg internet bi nga xam ne yenn saa yi nga gis ci ay image yoo xamante ne bii dëppoowul ak li diine santaane soo ci bëggee mucc dangay sori looy jëfandikoo appareil yooyu teg alquran ci sa kanam di ko jàng ak téere yu baax yi moo gën nga bàyyi lekk bàyyi naan ba noppi fekk say bët woorul yaa ngi xool loo warta xool loolu nag xam naa ne suñu réew yi ñu dëkk ñun muy réew yoo xam ne diine ngi fi naam waaye tadayun bi tadayun chakk lii la waaw lay fond wu diine dëgg dëgg dëgg ñun duñ ko bàyyi xel da ngay gis ko woor ba noppi jàkkaarloog télé bi di seetaan ay tëgg di seetaan ay fecc ña koy def sol luñ warta sol baaxul ci benn anam waaye rawatina ci biir weeru koor kon ñi ngi ñaan ñi nga xamante ne bi ñoo yore télévision yi ñu dimbale nit ñi ngir yàlla lu bon bon weeru koor bokk ñu jagleel ko yàlla jagleel ko ay émission diine jagleel ko ay waxtaanu diine donte am na ci waaye dañ koy kooj dañ koy jaxaseeg loo xam ne bokk ci te loolu alalu àdduna jaru ko ndax lu mu bari bari lu mu neex neex itam bis dana ma sa ñëw nga wan lépp gannaaw bàyyi ko fi dara du la ci topp ci sa biir bàmmeel lu dul lu baax la nga jëfoon te soo ko defee ba noppi bàyyi ko fi dem nga waaye yow mi ko sos nag bàkkaar bi du la du dégg nga du la wàcc wala taziru waziratun wisra uxra wa in tad'u muthqalatun ila ximliha laa yuxmal minhu shay'un walaw kaana daa qurba kon ñi ngi ñaan luñ ñu ci mën a dimbalee dimbale ci suñu njaboot fa tabarakallahu yal na yàlla fay leen ñu defal ñu ko ndax ñun ñëpp ngërëmal yàlla dong la ñuy wut ñun ñëpp dañoo bëgg a baax ñun ñëpp dañoo bëgg bu ëllëgee bu ñuy teere ci sa suñu kanamu boroom ñu teeri fa ak ay garaat teeri fa ak ay cër teeri fa ak ay ndabi tiyaabo te bañ ko yàq wa kadalika itam nopp yi woor bañ di déglu musique bañ di déglu leneen ak leneen loo xam ne bii ay kundung kundung rek la amalu la benn njariñ ngay déglu alquran di déglu salaatu ala nabi di déglu istighfaar yi dem ci jataay yu ñuy fëree alquran dem ci fat jataay yu ñuy waxtaane waxtaanu diine loolu mooy tax bu koor gi paree nga yëg ne yow mi wooroon nga muy weer woo xamante ne wii yàlla daf la ciy formé waat daf la ciy tëggaat daf la ciy initié waat ba boo ci jógee da nga yëg ne yow mi beneen nit nga def nga intiqaal min marxalatin ila uxra def nga intiqaal min tawrin ila tawr am nga étape boo nekkoon boo xamante ni bii setoo woon yaa ngi doon cunguñ cangañ waaye nga toxoo fa nag dem ci étape boo xam ne macha allah da ngay set wicc da ngay yëg di purification am na sa ruux gën na woyof gën na set li ko diisaloon yépp fexe nga ba tegg ko ci biir weeru koor wi waaw da ngay yëg ne beneen nit nga waaw lekk sax na nga ko daan defee da nga sentir ne te teguwul ci yoon weer wi dana lay yar ba su weer wi jeexee sa lekk dana wàjjeeku doo lekk lu dul lekk farata waaw lekk yi ci diggante bi jëng ñam fii ñam fii mu lay indil feebaru suukar di la indil feebaru leneen ak leneen weeru koor dana la dimbale nga organiser sa yaram organiser sa lekk organiser sa naan organiser sa nelaw ba su weer wi jógee da nga yëg ne am na lu weer wi def ci yow loolu moo tax yaa yàlla ne yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun kon weer wi yàlla jubluwu ci rek bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi sëy mais da ciy jublu su weer wi jeexee ku ci nekk yëg ne am nga yóbbal bi gën ci yóbbal yi te moo di taqwallahi la yàlla sant nga sawar ci la la yàlla tere itam nga bàyyi ko mbokk yi loolu mooy weeru koor yal nañ ci yàlla boole defal lu ci mat yal na yàlla nangu lu ci matul yal na yàlla mottali te nangul ñu ko ndax doomu aadama yàllaa ko bind dégg nga ci wàññeeku yàllaa ko bind ci doyati yàllaa ko bind ci mànkite waaye nag ni yàlla toll ci mat ak daraja ak jalaal ak jamaal ak kamaal yal na yàlla seet ci loolu jëflanteeg umma bi yépp fa tabarakallahu ku ci am rëcc rëcc ci barke weer wii yal na la ko yàlla jéggal xaq yi nga xamante ne bi itam moo dox ci suñuy diggante te mënuñu ko fay yal na yàlla wuutuñu min xazaini fadlihi wa juudihi wa karami ci magasin wu ngëneelam yi yàlla fayal ñu ci xàq yooyu te bañ koo jële min xasanaatina ci suñuy yiw ndem yiw am na te sax yaakaar nañ ne yiw am na waaye su amee itam yàlla nañ ko yàlla téyel ba mu bañ a yàqu ndax doomu aadama dana def lu baax ba noppi ñu nangul ko muy lu baax waaye ginnaaw bi mu def loo xam ne bii dafay màbb la mu jëfoon yàlla nañ ci yàlla boole musal yàlla nañ ci yàlla boole busal wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya ba ay ba jeex def na yaa ngi ci lu baax te fekk sax li nga nekk baaxul loolu yëpp yàlla nañ ci yàlla boole musal mbokk yi weer waa ngi noonu ñu ngi leen di baalu xaq yéen ñépp waaw képp koo xam ne amel nañ la xaq moo xam ci wax la wala muy ci jëf ñu ngi lay taxaw ci sa bunt di sukk ci sa kanam di ñaan nga jéggal ñu min qabli an yaatiya yawmun laa yanfacu fiihi maalun wala banuun waaw balaa bis boobu di ñëw nga xam ne xaq yépp dañ ko war a fay mbokki umma bi yépp seen mbokkum jullit mi ngi leen di baalu xaq di baal ñépp nag di ñaan yàlla ne ko sama mbokk sama wëllëre sama xarit sama lépp di ko faral di wax su ma ne ko baal ma xaq mu ne ma maxtaar yàlla buñ toppante xaq muy wax boo xam ne waxu nitu yàlla la macha allah waxu ku taqante ku yàlla la yàlla buñ toppante xaq mbokk yi tabarakallahu te ku jéggale rek yàlla jéggal la waaw da nga gis koo xam ne danaan man li ma diw def mënuma ko koo baal mënuma ko koo jéggal yow itam def nga yàlla loo xam ne boo sañoon mu jéggal la waaw waliyaafu waliyasfaxu ala tuxibuuna an yaxfira allahu lakum yàlla nee na nañu jéggale nañu jëllale yéen itam def ngeen yàlla loo xam ne bëgg ngeen mu jéggale kon nag na ñépp am esprit wu pardon jéggale ak jëllale soo ko defee insha allahu taala yàlla daf lay jéggal ku bëgg yërmande da ngay yërëme ku bëgg njéggal da ngay jéggale waaw ku bëgg sutura da ngay suturaal nit ñi waaye koo xam ne kii loo xam ci nit ñi wax te bëgg nga sa lépp yàlla suturaal la dana xaw a doy waar mbokk yi kon weer wi mi ngi noonu dugg nañ ci bismillah yàlla nañ yàlla may ñu àggale kook alhamdulillah te yàlla bu mu nekk suñu mujju koor ñu yàlla di jéggal di leen fóot ba ñu set wicc yàlla di leen goreel ci safara yàlla nañ ci yàlla boole boole ci suñu wayjur ak suñu kilifa yi jiitu ak mbooleem ñi nga xam ne ci ñoom lañu bàyyi ko ak ñi nar a bàyyi ko ci ñun ilaa an yaritha allahu al arda wa man alayha yàlla nañ yàlla boole dugal foofu ñun ñépp ci barke sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam xanaa benn mbokk rek bu doon laaj ne weeru koor ñëw na li ci yàlla tere te moo di taarifu koor moo di nga bàyyi lekk bàyyi naan bañ a ànd ak sa soxna waaw bu fekkente ne bi fajar xar na ba keroog jant bi di so diggante boobu nit ki du fa lekk nit ki du fi naan amul sañ-sañu ànd ak soxnaam ñu ne waaw lekk gi moom xam nañ ne daganul waroo lekk waroo naan sa soxna si nga nekkal ci biir kër gi ngeen di rombante mën na am mu tëdd fii nga tëdd fële mën na am muy julli mu toog ci sa wet mën ngeen toog ci benn fauteuil ndax am na lu leen sharia may ci diggante boobu nga xam ne ci la fajar di xare ba keroog jant bi di so lan moo dagan ci seen diggante ñoom ñaar ak lan moo xaraam wala ku ci nekk danga war a wan sa ginnaaw loxo ginnaaw sa moroom amuloo droit sax jox ko loxo amuloo droit toog mu toog wala am na lu sharia maye ci diggante bi en tant que ñaari way dencante ñu ne waaw ñaari xeetu koor moo am bu fekkente ne bii koor gi ñu def ñoom ñaar kooru ngàtt nga la nga xam ne du kooru farata dañoo coobarew rekk woor ngir am ngëneelal suñu borom subhanahu wa taala ndax li nekk ci koor ci ay ngëneel ak ay cër moom lañ bëgg a dabu kooku benn benn koor la walla muy weeru koor nga xam ne moom farata la waaw ala kulli muslimin wa muslima farata la ci jullit bu góor bu ne ak jullit bu jigéen bu nekk bu nekkee mukallaf tabarakallahu te wéram may ko ko mu mën a woor farata la ci ñoom ndax ponk la min arkaanil islaam kooku itam beneen atte la ñu ne su fekkente ne bii kooru ngàtt nga la nga xam ne jëkkër ak jabar dañoo woor wooru nga kooru ngàtt nga wala kenn ci ñoom ñaar woor ka ca des wóorul boroom xam-xam yi nee nañu falaa yaxrumu alayhima shay'un amul dara luñ leen tere lal jimaacu wala xayruhu ba ci sëy mën nañoo woor ba ci digg bi wala kenn woor ba ci digg bi sëy dox ci seen diggante ñu ne waaw loolu moom dana yéeme di mu ne waaw li ko waral mooy ci imaamu shafii ci madhabam ak imaamu ahmad nee nañu alxuruju min sawmi tatawuci jaaisun nit ki mën naa woor kooru ngàtt nga dem ba ci biir mu génn ci te dara du ko ci war kon nit ki mën naa woor ba ci digg bi mu lekk wala mu naan dog wala mu ànd ak soxnaam te dara du ko ci fekk doonte nag li ñu gënal nga xam ne li ñuy sopp dëgg-dëgg moo di ku tàmbali woor kooru ngàtt nga wala nga tàmbali julli jullig naafila la ñu sopp dëgg-dëgg mooy nga mottali ko waaye boo demee ba ci biir nga génn ci itam ndax dara dana la ca war wala du la dara du la ca war ñu ne déedéet dara du la ca war ndax naafila la wa man daxala fii sawmi tatawwuin koo xam ne dangaa dugg tàmbuli kooru gàtt nga aw salaati tatawwuin wala julli goo xam ne du farata yaa coobari woon rek di ko julli ustuhibba lahu itmaamuha la ñu sopp ca moom mooy na ko mottali bu ko tàmbulee waaye fa in xaraja minha jaasa bu demee ba ci biir mu génn ca itam dara du ko war ñu ne waa fan lañ ko teg mu ne sittuna aïcha radiallahu anha nee na daxala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sang bu tedd bi dafa ñëw ci man fa qaala hal indaki shay'un mu ne ma ndax daraa ngi fi am nga dara luñ mën a mos fa qultu laa ma ne ko déedéet fa qaala idan asuumu kon boog mu ne ko kon maa ngi maa ngi maa ngi tàmbali koor nga gis ne kon kooru ngàtt nga nit ki mën na bañ a fanaanoo yéene ndax sang bu tedd bi fanaanoowul yéene mën na am sax bi mu xëyee ndékki na waaye dem ba ba ca kanam mu laaj ndax kër gi daraa ngi fi soxna si ne ko déedéet mu ne kon maa ngi jàpp mottali li des ci bëccëg bi muy woor muy benn summa daxala alayya yowman ax axara beneen bis ñëw mu ñëwaat beneen bis fa qaala hal indaki shay'un mu ne ma ndax daraa ngi ci yow luñ mën a mos fa qultu naam ma ne ko waaw mu ne ma idan uftiru kon jox ma ma dog nga gis na kon kooru ngàtt nga nit ki mën na ci dugg ba ci biir mu bañ koo àggale donte àggale bi moo gën mu dog te dara du ko ci fekk waaw sang bi ne donte sax man koor laa yéene woon waaye jox ma ma dog xadiis boobu rawaahu muslim bi maanaahu kama qaala nawawi boo demee ci kitaabu muslim daa ko ca fekk kooku mooy atte kooru ngàtt nga gis ne kon kooru ngàtt nga fa tabaarakallaahu nit ki mën na koo tàmbali dem ba ci biir mu génn ci moo xam dafay lekk wala mu naan wala mu ànd ak soxnaam te dara du ko ca fekk kaawu ñaareel bi nag mooy kaa bi nga xam ne moo ñu gën a itteel muy koor goo xam ne moom dafa nekk koor gu war comme weeru koor wii ñu toll an yakuna axadu zawjayni aw kilahuma saaiman sawman waajiban ka ramadaana waaw aw sawma qadaain ñaari way dencante ñi wala kenn ci ñoom ñaar nekk ci koor goo xam ne dafa war lu mel ne woor weeru kooro weeru koor wala muy koor goo xam ne daf ko amee woon ci weeru koor di ko fay kooku itam farata la wala muy kafaara loo xam ne daf ko defoon kafaara war ci mu di ko def fal jimaacu fi hada sawmi muharramun bila shakkin kooku moom kenn amul werante ne ku góor amu cee amul sañ-sañu jote ci ak soxnaam moom bu fekkente ne wóorul soxnaam nekk ci weeru koor wala muy fay koor goo xam ne dafa war wala mu am kafaara bu ko war mu di ko fay boroom këram amul sañ-sañu damm loxo soxnaam di joteeg moom ci weeru koor wi فالجماع في هذا الصوم محرم بلا شك ويفطر به الصائم إجماعا كيغا خامن كي دا فا وور ديف لو مل نونو كوكو كورام دا فاي دوك وتجب عليه الكفارة كفارة إتم داف كو تشي إن وقع الجماع في نهار رمضان بوكو دا فاي تي بيتي ويرو كور دا فا ورا كفارة waaw ñu ne waaw loolu mooy ànd jotee ñoom ñaar jotee nga xam ne bii dañuy jaxasoo ñoom ñaar ànd carrément dégg nga ni boroom kër di ànd ak soxnaam mais li ci des nag lu mel ne fóon ak raayante ak yu mel noonu wa amal qublatu wal mubasharatu waaw ngay flirter sa soxna di ko fóon wala nga di ko raay ci bëccëgu weeru koor kooku itam fa taxrumu waaw bu fekkente ne bii atte boobu ñaari kaa la bu fekkente dañ mi nga aju ci ki koy def ak ñi koy def su fekkente ni bi njort li ëpp ci seen njort mooy bu ñu ko defee ñoom ñaar fóonante bi ñuy fóonante wala raayante bi ñuy raayante dana am lu génn ci ñoom ñaar kooku xubla bi fóon bi ak mubashara bi dafay xaraam dafay xaraam su fekkente ne bii nag mën nañoo téye seen bopp ñoom ñaar ba dara du wàcc ci ñoom kooku def nañu loo xamante ne bii sib nañ ko boo demee ci ibnu qudaama fi lmughni nee na fa inna al muqabbila in kaana daa shahwatin mufritatin bi xaytu yaglibu ala dannihi annahu ida qabbala anzala kooku lam taxilla lahu lqublatu nee na bu fekkente ne bii kii foon soxnaam dafa nekk koo xam ne kii dafa dafa am sensation bu kawe waaw nga xam ne daal li ëpp ci njortam mooy wóor na ko ne bu àndee ak soxnaam dana am lu génn ci moom dana def inzaal kooku dañ koo tere mu foon soxnaam li annaha mufsidatun li sawmihi dafay yàqu kooram ñu araamal ko ci moom ni lekk araamale ci moom noonu la ñuy araamale ci moom mu foon soxnaam ndax bu foonee du ca yem su foonee mën na am lu génn ci moom te inzaal boobu dafa bokk ci li yàqu koor wa in kaana daa shahwatin bu fekkente ne bii nag am na bànneex waaye bànneex xam moom demewul noonu gaawul am yëg-yëg waaw lakinnahu laa yaglibu ala dannihi dalik waaw njortam daal may na ko ne moom mën naa foon soxnaam te dara du génn ci moom kuriha lahu taqbilu kon foon nga dañ ko sib waaw kon kon foon nga dañ ko sib imaamu nawawi nee na raximahullahu mi ngi leeral ngiru boroom xam-xam yi ci fóon sa soxna ak jonjoo ak moom ci koo xam ne dangaa woor mu ne ñun de li ñu gëm moo di ne suñu madhab moo di ne sib nañ ko sib nañu fóon ci koo xamante ne kii dafay yëngal bànneexam waaye koo xam ne kii mën na koo def nag te du yëngal bànneexam kooku moom kenn sibu ko ci moom waaye daal wal awla tarkuha li gën a yey gën a wóor dana mat ak du mat bul jox sa loxo moo di daal bëccëgu weeru koor daal nga soli sa soxna bu fekkente ne bii nag def nga ko waaw waaye yàlla def na benn bànneex maanaam inzaal amul donte am nga ci bànneex yëg nga ci bànneex sensation am na waaye nag dara génnul ci yow kooku du yàq sa koor ibnu mundir radiallahu anhu nee na seydina umar bnu xataab radiallahu anhu moom daana ci may ruxsa wa ibnu abbas wa abu hurayra wa aisha wa ata ñoom ñëpp daanañ ci may ruxsa ci ne mën naa nekk waaw ibnu abbas seydina umar bnu xataab radiallahu anhu abu hurayra wa sittuna aisha radiallahu anha wa ata wala xasan wa ahmad wa isxaq waaw ñoom nee nañu mën naa nekk wa kaana saad bnu waqaas radiallahu anhu laa yara bilmubaasharati lissaaimi basan waaw ñoom daan nañu wax ne daal ku woor mën nga jonjoo ak sa soxna waaye nag bu mu sori waaye sayidina abdullahi bnu umar radiallahu anhu kaana yanha an dalik nee na daal bu ko kenn def abdullah ibnu mas'ud radiallahu anhu dem na ba ne ku ko def sax bis booba danga koy fay yaqdi yowman makaanahu bu dee ci ngiru imam malik wa kariha malikun alqublata lilchaabi walcheikhi fi ramadana imam malik moom nee na moo xam ki woor ndaw la wala muy mag moo xam ne dem na ba bànnee xam dematul noonu sib nañ ci moom muy fóon soxnaam ci weeru koor wa abaaxataha taifatun li cheikhi duna chab mi man qaalahu bnu abbas am na beneen kuréel bu ne daal bu dee ndaw nga xam ne bànneexam dafa gaaw a jóg mi ngi toll ci digg dooleem deretam mi ngi daw ni mu war a dawee kooku daal ci dëgg-dëgg bu mu foon soxnaam bu dee mag moo xam ne dem na nag ba bànneexam daanaka demeetul noonu di nga mën naa jonjoog soxnaam te du ci yéeg dara kooku abdullah ibnu abbas nee na mën naa nekk abu thawru nee na in xaafal mujaawazata min al qublati ila gayriha bu fekkente ne bii nag dafa ragal ne bu dee fóon du ca yam mën naa caa jàll dem ci leneen na bañ a fóon ibnu mundir ba tey loolu la wax waaw alxataabi jële na ci said ibnu almusayab radiallahu anhum ajmaina mu ne anna man qabbala fi ramadana qadaa yowman makaanahu nee na koo xam ne dangaa fóon ci bëccëgu weeru koor daal nee na il faut nga fay wa xakaahu lmaawardi an muhammad ibni al alxanafiya wa abdullahi ibnu shibrimata radiallahu anhum ajmain wa qaala saairu lfuqahaai qaal mu ne wa qaala saairu lfuqahaai boroom xam-xam yépp nee nañu alqublatu laa tuftir foon kese nii rek du yàq koor maanaam du tax nga dog illa an yakuna maaha inzaalun lu dul nga fóon gi bi nga ko defee am lu génn ci yow soo ko defee kon sa koor dafay yàqu fa in anzala maaha aftara bu fekkente ne bi fóon gi dafa am lu génn ci yow ci sa awra génn kooku aftara dafay dog wa lazimahu lqadaau bu ko defee bis boobu da ko war a fay duunal kafaarati waaye kafaara du ko ca fekk kafaara moom pour mu am il faut que nga jaxasoo ak sa soxna il faut nga am rapport sexuel ak moom ngeen baal ma ci terme yi du ñàkki teggin waaye bëgg mu gën a leer rek ba kiy dégg gën a xam dëgg-dëgg loolu lañ ci jublu mu ne wa mimma yadullu ala an alxukma manutun bi xashyati thawaraan alshahwati ma jaa fi sunani an abi hurayrata رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي أو رخص له شيخ والذي نهاه شاب من لي ونني أتبي ميغي أجو تي نتكي يك يك دموي أم liñ jële ci sunan jële ko ci abi hurayra mu ne benn waay dafa ñëw laaj sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax mën naa raay sama soxna waxuma la sëy ak moom de raay ci kaw nii rek mu ne ko waaw keneen ñëw mu tere ko ko waaw kim ci may ndigal mag la moo xamante ne mi daanaka dem na ba yëg-yëgam amatul lu mel noonu mën ngaa toog ak sa soxna nga toog nga jël sa loxo teg ci sa kaw nga jël loxoom teg ci kawam muy mubashara yem ci kaw ndax booba daanaka bànneex nekkatu fa ki nga xam ne bi mu ñëwee daf ko ko tere daf ko xool gis muy ndaw mu xam ne kii mi ngi toll ci digg dooleem waaw bu laalee soxnaam rek dana ci am bànneex fa tabarakallahu mu tere ko ko waaw kon mbokk yi liñ ci mën a jële mooy daal bu dee kooru ngàtt nga amul benn problème ndax fa tabarakallahu du kooru farata ni ci nit ki duggee mën na cee génne noonu waaw te loolu xëy na boroom xam-xam yëpp mën na am dëppoo wuñ ci waaye daal li ëpp ci boroom xam-xam yi dëppoon nañ ci ndax kooru ngàtt nga la waaw kooru ngàtt nga la ah waaye nag bu dee koor goo xam ne moom kooru farata la moom ci dëgg-dëgg tabarakallahu mi ngi noonu waaw atte yaa ngi noonu coow li bari na ñii lii lañu wax ñii lii lañu wax ku ci nekk nag boo dégloo daal yaay xool li la doy nga jàpp ci fa tabarakallahu ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu may ñu dégg ak topp lu ci am ci njuumte ngeen bal ñu ko te xam ne in uridu illa al islaaha ma stataat wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu